c'est la référence. kaddu gi di àddoo studio Alioune Momar taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh Imam Assane Cissé mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës. li ci gën a fës nag bokk na ci ci teewaayu procureur de la république gouverneur waa kër docteur ak lenn ci askan wi niki démb nag douane bu zone centre bi lakk nañu nag lim bu takkoo takku ci sinébar ak i garab yu baaxul loolee nag ba ñu ko xayma daanaka rek ëpp na ñeent fukki milliards ci sunu koppar dañ ca dikk léegi léegi ci biir xibaar yi juróom-ñetti député yi ñu bëgg a yokk nak ci assemblée nationale bu Sénégal loolee nag jamono ji jur na coow ci biir askan wi bu dee ne sax ñi faral nguur gi ñoom ña nga koy layal ñi nga xamee ne ñoo di ko jëkk politique bi ñoom dàq nañu ko ba mu set wecc ne loolee nag yàq xaalis gu métti la ak it nag yokk dépense la ñu war a def sax jamono ji mooy fexe joyanti charte pencum ndaw réew moom mi dañ ca dégg Cheikh Babacar Dieng waa ànd gësëm itam nag xàccaat nañu rek daal di dëgmal euh, beneen bi plan euh, d' action ni ki démb nak fii ci kaw Kaolack amal nañu ab sitting euh, ca Ndofane itam naka noonu nee nañu nag du ñu bàyyi fi léegi itam sa suñu nguur gi rek ci miir bi ba mu wàccook protocole d' accord ba mu xaatimoon loolee itam daa ñu leen ci dégg rek ci ndimbalal noix bi yaay bu li lépp yembe mbokk yi dañ ca teg xabaaru bi cim réew tàggat yaram yóbboolu koor geeg oustaz Mouhamed Sow toftal ca kooru gay ak baax a Diop jeexalee ko li ci yéenekaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nes faram-fàccee. Le journal Ngoné Ndiaye Reine moo nekk ci euh, waxukaay gi fego ceek Codou Seck madame Keneme ci wàllum xarale gi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu doore ko nag ak nañu leen ko junjee duwaan bu zone centre bi nak ci seen ak farlu ni ki démb rek lakk nañu nag ay produits yu baaxul ak yamba ju bare bari loolee nag di tekki rek liggéey bu rëy ba ñuy def jamono ji ngir gàntal pexey waay Samba Boy yi Cheikh Tidiane Diagne. ndekete lépp lu xel xalaat rek def katu ñaawte fi ñoom xalaat nañu ko ba noppi yàmbaa ji di ko dugal ci biir réew mi 40 milliards ci kopparu CFA lépp ñu lakk ko def koy dóom muy ay yàmba yoo xamante ne ñi koy dugal ci biir réew mi ñu ngi ko defoon na ci ay valise ñii def ko ci ay saako ñekke des laxas ko ci ay basan mer gàddu ba ci ay mbuusu perméable lépp dañ ciy laxas drogue bi ñu mel di ko dugal fi nga xamante ne moom moo di ci dëkk bi waaye nag douanier yi di gàllankoor li nga xamante ne moom moo di seen pexe saa su nekk bi ñu koy lakk nag ci teewaayu kilifa yi takku gouverneur Alioune Badara Mbengue daal di jiite bi. ci lay def xayma gi moom colonel Bourama Diémé jiite douane yi nekk ci digg réew mi. de mille vingt donc ci premier trimestre mille vingt deux bi mu ngi jàpp liñu xayma ci chanvreña douze tonne neuf cent quatre vingt quatorze ko xayma ci xaalis mu nekk un milliard trente neuf millions cinq cent trente deux mille ci wàllu drogue yi ñuy naan méthamphétamine donc ñu ngi jàpp six kilos méthamphétamine duñ koy évaluer dafa cher mu nekk six cent quatre pour médicaments yi nag au total zone centre mu ngi jàpp lu mat trente-neuf milliards huit cent quatre-vingt-treize millions cinq cent un mille cent vingt-six francs donc lépp buñ ko xaymaa ci xaalis direction régionale centre mu ngi jàpp lu toll produit nga xamante ne produit bon la quarante et un milliards six cent vingt-trois millions trente-trois ay ndawam def nañu ko ci terrain bi ba daal di teg loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo di defkatu ñaawteef yooyee mu ne nag liggéey la boo xamante ne nii la ñu ko jëmmalee. waaw liggéey terrain la xam nga ñun euh, suñu dispositif direction na dafa ëmb lu ñuy naan subdivision subdivision mooy état major unité yi nga xamante ne ay unité yu yëngula ci surveillance surveillance mooy euh, fu nekk foo xamante ne ay frontière la dañuy def ay service comme service yoo xamante ne dañuy dawal di xool ndax yoo xamante noté parfois ñooñu ngeen di ñu def contrôle xool oto yi ñuy transporté donc ensemble unité yooyu ci service divers yooyu ñuy def foofu la ñu mën defee résultat yu mel bu weesoo yàmbaa ji amoon na tamit ay jumtuwaay yoo xamante ne dafa jëm ci wàll ko wér gi yaram ba si sax ab lal boo xamante ne moom ngeen di gis ñu ciy tëral way tawat yi ci biir hôpital yi li lépp boole woon nañu ko ci li nga xamante ne moom moo di seen pexe ñoom Samba yi li nag tax na mbooleem ku fa taxawoon sa loxo dar sab gémmiñ Cheikh Tidiane Diagne dañuy des ba tey nag ca woowule mbir directeur régional des douanes du centre moom nag dikkaat na rek ci incinération boobee xayma gi situation bi ci zone centre bi nga xamee ne mi ngi lëkkale Kaolack Kaffrine Fatick ak Diourbel waaye itam lëkkaloo bi war a dox ci diggante askan weeg waaye takku der yi colonel Bourama Diémé ak Cheikh Tidiane Diagne. mais saisi yi du lépp lañ fi yore parce que direction régional des douanes du centre du subdivision de Kaolack rek la am na yeneen nañ def nañu saisie yooyu te xam naa prochainement aussi dinañ leen woo ci yeneen région comme Diourbel Kaffrine wala Fatick pour ñu mën a laaj yeneen quantité yi nga xamante ne dàpp nañ waaye nag li gën am importance mooy tey ñu dajee fii te ñu woo presse bi di lakk garab yi produit yëpp muy drogue ak garab donc c'est pour tout simplement won population sénégalaise que xeex bi du xeexu force de défense ak sécurité muy takk der yi mais xeex ñëpp la parce que garab yi ak drogue bi lu muy def ci bon ci population tax donc ñuy ñaan population bi ñu mën a dénoncer trafiquants yi xeex bi ñu jàpp ci comme ça ñu mën a éviter situation yu mel ni donc c'est pour que ñu mën a produit yi nga xamante ne produit yu bare la te ñu mën ko xayma lépp mu nekk chanvre indien morphine méthamphétamine ak ay garab yu bon donc lépp ñu ngi koy xayma à quarante milliards sept cent deux millions cinq cent vingt et mille cinq cent soixante deux mi loo xamante ni produit dañu bare te subdivision de Kaolack moo réalisé si yooyu euh, xeex boobee nag ne naam itam ñoom douanier ñoo ko daal di sumb waaye nag ñëpp ci war dugal seen ak loxo ba du yegg ci ndaw ñi ndaxte nag garab yooyee ak sine bar bi ay njeexital yu métti métti rek la leen mën a jural lu ni mel nag ka ko xamle mooy docteur Ibrahima Diop mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. lii mooy wane ne santé dafa transversal parce que tey soo fi xoolee di fi gis ay sapeur pompier di fi gis ay douane di fi gis police comme ni ñu ci temps yi Covid bi donc tous les secteurs convergent vers la santé donc xeex bu ñu xeex tey dañuy féliciter douaniers parce que ñoo def liggéey bu set bi te lii day aar suñ population bi parce que gis nañ fi ay drogue gis nañ fi ay yamba gis nañ fi ay faux médicament yoo xam ne valeur bi ëpp na milliards donc war nañ tiit suñu jeunesse war nañ tiit suñu jeunesse te waruñu yem rek si war nañ vulgariser si danger produit yi nii si ay panel si ay conférence di def ay conférence surtout si ces produits là je rappelle très bien imam Assane Cissé à Banjul def na benn conférence bu mag sur substance drogue yi nii il faut ñu continuer si lancer boobu kilifa yi ñëpp di si wax pour que lii ñu mun parce que baaxul si population nit mun na yeewoo këram rey papaam ñu ne lan la feebaru deful dara fekk dafay utiliser drogue yi nit mun na ñëw jam nit paaka mu dee fekk mun na utiliser drogue yi te dee gi bëri feebar yi cancer yi bëri insuffisance rénale yi bëri te tout ça c' quoi c' utilisation de ces produits là. la mooy produit morphine morphine koo xam-xam ne drogue la mun na indi euphorie da koy jël da am dépendance soo ko amul sa parent dem si biir jël xaalisam dem pour jënd produit lañ ko utiliser donc c'est un produit très dangereux te jàpp nañ si plus de 38 milliards ak chambre indien yamba kenn du ko jàngal kenn ñëpp xam nañ yamba muy def si xar bu góor léegi jàpp ci garab yëpp ñaata la plus de 1 milliard de médicaments est que 2 milliards la mooy médicaments yi ñuy véhiculer dans les réseaux sociaux ay dama bëgg am yaram ñu ne la jëleel bi di am yaram di rëy di am kii loolu lan moo ko jar médicament xam ne yow attanoo ko nga dem ñu tëdd benn nit hôtel rek ñu ne dee na lu ko rey moomee nag moo fa teewaloon rek syndicat bi attaqué pharmacien yi ci Sine Saloum procureur de la République itam bi ci tribunal grande instance bu Kaolack bi teewoon na fa daal di wax itam liggéey beeg lëkkaloo gi ci war a am te mu war a doon nag xeexu ak ñëpp rawatina yi tamit ñoom fa ñu faree ci wàllu yoon Cheikh Dieng ngi ci micro euh, Cheikh Tidiane Diagne. xam nga li naan chaîne pénale maanaam dafa am fu muy commencé ak fu muy àggee fi muy commencé mooy bu police gendarmerie douane eaux et forêt en tout cas képp kuy liggéey ci police judiciaire jàpp nit constaté benn délit def procès verbal bi indi procès verbal bi ci procureur jébal nit ki procureur procureur mooy topp mooy ce qu'on appelle le maître des poursuites mm. donc moom mooy engagé action publique mooy ndawul société pour seetlu ñi tooñ ak ñi tooñul mu teg leen ci yoon boo ko defee da indi ci juge yi juge affaire drogue ñaari bànkaas la ñoom ña nga kaso jaar ci ñun ñu yóbbu leen kaso seen dossier nekk ci juge d'instruction bi bagage yi ce qu'on appelle l'objet du moo tax li nu tere nit téye ko yamba dañuy tere ko koo jaay dañuy tere ko yor dañuy tere ko koo jëfandikoo ñooñu li leen war a teg teg nañ leen ko waaye loi bi waxul lool dafa wax peine principale mooy jàpp nit ki tëj ko ak teg ko alamat mais dafa am li ñuy wax naan penn complémentaire maanaam la mu yoroon ci pour indi drogue ba ak drogue ba mu yor oto ba dañ koy confisquer jox ko trésor public drogue ba kon dañ koy tere dañ koy éliminer dañ koy yàq boo gisee tey jotaay bi gouverneur direction centre lu procureur la république force de défense de sécurité yëpp ñëw nañu loolu mooy toute force vive de la nation yëpp danoo engagé wu danoo bokk ci xeex bi yéen aussi ci ngeen bokk donc yéen aussi ak la société yi son ensemble bon drogue baaxul day yàq nit ki ci santé day yàq nit ki ci santé mentale am day yàq njabootam da koy déstructurer ay relations sociales donc euh, drogue nag comme moom doon na ko expliquer xeex bi du xeexu benn c' est tout le temps parce que c' est les enjeux c' est des enjeux financiers pour des délinquants. moom mi nga xamee ne nag ne moo di kilifay région bi di Gornor moom nag ci teewaayam ak ndigalam la doon lakkee produit yooyee moom sax dikkaat na rek di woo askan wi ñuy faral di jéebaane lëkkaloog douanier yi ngir itam mën di gàntal pexey waay Samba Boy yi lu ko jiitu nag ma ngay rafetlu liggéeyu waay takku der yi Alioune Badara Mbengue ak Cheikh Tidiane Diagne. dafay wane liggéey bu am solo bu douane ak yeneen force de défense et de sécurité di jouer ci aar askan wi question bu ñu waroon mën a poser mooy produit yi lan la mënoon def ci jeexital ci wér-gu-yaramu ñi nga xam ne ñoo ko waroon consommer su fekkoon ne rëcc na mais yàlla baax na ba rëccul léegi nag li ci war rek mooy ñu continuer xeex bi xeex bi nag du douane wala police wala gendarmerie wala eaux et forêts ñoo koy mëne xeex bi ñëpp ci war a bokk population yëpp dañu war bu gisee lu mel ni ñu jéemaade ko parce que bu ñu ko defee rek ñi nga xam ne nii ñoo koy def danañ leen gaaw di leen feeñal di leen jàpp di leen daan daan saf parce que nag lii ku koy def ci am réew d'accord da nga ci am xaalis de mais xaalis boo nga xam ne nii da gaañ nit da koy def mu nekk sagaru nit da koy def mu tàggoog sagoom tàggoo ak njabootam xaalis boobu yal nañ ci yàlla mosal donc dañoo tax daal ñu bëgg vraiment ñu continuer waat parce que daaw daje nañ fi def lu mel nii rek ñu dajewaat fi je koy def ñoom nekk nit mën na fa jéem ut porox ndoll pour jàll mais li ci am solo rek mooy ku fexe aussi ba ut sa porox ndoll ba jàll boo duggee ci réew mi aussi doo sori loolu nag li ko waral rek mooy li tax muy mën a am mooy ñu continuer lii te mënoo fu nekk nga def fa benn douanier wala fu nekk nga def fa benn policier wala benn gendarme ñooñu ñi leen war a compléter mooy nit ñi boo gisee nit nga xam ne nii mi ngi chargé lu mel nii wane nañ ko fi léegi kuy jël ay mat la ñu war a tëdd xotti mat la bi dugal ci yamba noonu na dem fenn lal mat la bi di waxtaan ku kuy kurti kurti demee noonu signalé ko nañu xam ne buñ signalé aussi yow dara du la ci fekk parce que ñun nag jàng nañ nu ñuy gérer information donc yow mi ko signalé dara du la ci fekk moo gën nga bàyyi ko mu dugg lor ñi fi nekk loraale xale yi mën naa am sax yow mi noppi sa xale bokk ci parce ay du yem ci bopp bor fee jeexale nag mooy ñoom tant que sonn ñun aussi duñ sonn de loolu moom bu yeboo mu leer leen te ñoom itam pexe yu ñuy jël rek ñun aussi ñu ngi jël yeneen pexe. mu boobee maanaam daal lakk googee ñu doon lakk produit yi ak yamba boobee ña nga ko doon defee rek fu jege commune bu euh, Ndiaffate. yéen a ngi déglu xibaar yi ci al Alfayda FM ñu daal di eh, wéy ba tey ci eh, jukkim xabaar yi ak it nag leneen lu ñu leen eh, junjoon syndicat bi di ànd gësëm te daal di aju nag ci waa kër docteur maanaam daal wàllu wér gi yaram gi ñoom nag jamono ji ña ngay wéyal rek xeex ba ñu sumboon di sàkku itam ci nguur ak Sénégal gi ab toogaayu waxtaan bu ñu fulaal te it nag mu daal di taxaw rek ci seen i ay revendication Ndofane ak nañu ko doxalee Ibrahima jàlloo jokkoo na ci ak Cheikh Tidiane Diagne. tey nag dañoo ñëwoon fii si Ndofane si centre de santé bi pour def lu ñuy wax sitting maanaam toogaanu ñaxtu diggante. diggante dix ba treize heures boo gisee ñu koy def nag dañoo am lu ñu naqadi si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñuy employeur suñu njaatige muy état li ñu naqadi mooy bokk na ci ñu ngi bëgg mu signer lu ñuy wax protocole d'accord boo xam ne ay waxtaan la yoo xam ne waxtaan nañ ak ak moom bu yàgg ba ñu tombee ci d'accord waaye booba tey mu ngi ñuy dawloo pour signer protocole d'accord boobu pour dëggal li nga xam ne waxtaanoon nañ ko loolu lañ bëgg état def ko nu mu gën a gaawee su loolu passé dañ fi nekkoon di grève en 2018 yàlla def président woote ne nañ arrêté sunu grève ñu ñëw waxtaan bu ñu demee wuy si président ñu ne ñu toog leen xaar lu jëm ci wàllu régime indemnitaire maanaam ay ndàmpaay wala ay yokk salaire xaar leen dinaa régler seen problème yéen ak yeneen secteur secteur yooyu jarul leen di tudd waaye bu yàggul dara am na si ay secteurs yoo xam ne fajaan nañ leen seen soxla lu jëm ci ñaar ba si ñetti secteur injustice boobu nag lañ bëgg ñu réparer ko ndax luñ bëgg mooy ñu ubbi lu ñuy wax de négociation sérieuses si li nga xam ne mooy régime indemnitaire ndax ñun lu ñuy laaj kenn gën ñu ko yello te c'est des revendications légitimes ay indemnité de logement augmentation indemnité de risque maanaam li nga xam ne mooy itinérance ak sunu ASC yi ak ASC yi matron ak dépositaires yi nekk si poste nga xam ne vingt cinq pour cent lañ li di fay si recette ñu ne na pour cent mu réviser lu ñuy wax la répartition de répartition des recettes loolu yëpp nag su fekkee ne état ñëw ci indiwu ci ay saafara ñun ñu ngi regretter waaye am na lu xewoon ci fan yi passé muy grève ñetti fan ñu ngi ci massaw population bi waaye nekk suñu sago waaye ci jamono bi may wax ak yéen ni ñu ngi ci suñ troisième plan d'action te troisième plan d'action bi bu fekkee état indiwul ay solution dinañ gën a labali mu gën a saf. mi ngi noonu moom nag coordonnateur bu ànd gësam boobee nag ca Ndofane nee na sax jamono ji nas nañu rek ay doxalin ak yi pexe yuy woon nguur gi ne itam kontaanuñu benn yoon ca moom te it nag du ñu bàyyi fi nekk saafara amul ay kàddoom ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. li muy gën a safee mooy dinañ continuer di def rétention formation ndax ñu ngi ci dinañ boy boycotter réunion yeeg formation formation yëpp ñu ngi ci waaye dinañ ci yokk lu gën a garaaw mooy su fekkee état réglé wu suñu problème dinañ boycotter dinañ arrêter li nga xam ne mooy ñàkk yi mooy programme élargi de vaccination. bu fekkee état satisfaire ñu Covid 19 vaccination Covid 19 dinañ ko arrêté képp ku bugg a tukki nag dinga ñàkku boo ñàkkuwul Covid 19 yaa xam nooy def si boobaa su fekkee état satisfaire ñu planification familiale dinañ ko arrêté duñ ko defalee di kenn. su fekkee état satisfaire ñu li nga xam ne mooy campagne de distribution de masse moustiquaire mooy sànke yi ñuy jox pour aar nit ñi si sibiru dañuy banque suñu loxo duñ ko joxe kon nag incha allah le 16 dina am évaluation évaluation boobu su passé xool su fekkee état satisfaire ñu wala satisfaire ñu naka la ñuy def pour prochaine plan d'action yi maanaam am na ay waxtaan yu ñu defoon mais waxtaan yooyu ñun gisuñ si dara lu concret su luñ mën a jàpp ba tax ñu arrêté su grève bi ñun daal concret rek mu ngi nii ñu téye suñu loxo rek na ñu gis ko jaxaran mooy tax ñu arrêté fekk loolu amul nag ñun ba fu mu yem rek neex fii ci eh, Kaolack itam gannaaw eh, Ndofane liggéeykat yi nga xamee ne ñu ngi ci kër docteur te aju ci ànd ak gëstam eh, googee ñoom nag ca poste de santé bu nag rek la ñu joxante woon rendez-vous ni ki démb nag dañoo nagamaloon rek lépp luy liggéey ci jamonoy 10 heures ba 14 heures nee nañu nag ñoom ca kaw rek la ñuy déglu bu ñu nee itam bu ñu faslante xànc ak morom mi ñoom itamit dañu cee daal di topp Mouhamed Nourou saw àdduna ci ci micro bi yaay. toogaay ñaxtu bi ko waral mooy xeex bi ñuy nekk di xeex ni xam nañ ko tey ñu nekkoon ci suñu euh, quatrième plan d' action gësëm boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar gouvernement bi mu woote waxtaan waxtaan bu am solo waxtaan boo xam ne dafay wéyal maanaam déggoo bi ñu déggoo woon ak gouvernement bi ci 2018 donc loolu ba léegi ñu ngi ci xaar gouvernement bi réagiruñu moo tax vraiment si logique ku continuer vraiment suñu plan d' action tey ñu amaloon sitting am na ay instance nationale ñoo xam ne ñoom ñooy décider loolu ñu nekk ci poste de santé nekk ci yi mot mu nekk nii bu fekkee gouvernement bi réagirul tomb yi nga xamante war nañ ko waxtaanee waxtaanee wuñ ko wala amuñ ci benn satisfaction ñu ngi déglu niveau national. ci wàllu wér gi yaram gi waaye bi yoon nag daal di àddu rek jëmee ci euh, leneen ndaxte ni ki euh, démb googee sax nag dafa yemboo woon rek ak bëccëg bi ñuy euh, màggal journée mondiale de la santé ci àddina daj wërngel képp fii ci Kaolack itam nag nee na lu ñu ko ndaxte nag kuréel gi di handicap membre ñoom itam màggal nañu ko rek jaarale ko ci ay waxtaan yu doon yee askan wi nag jëmee rek ci wàllum ëmb ak imbi ak it lu soxal hypertension artérielle leeral gi ak noa bi ay journée mondiale de la santé ñu ngi koy magal ci 7 avril magal bës bi mooy mandargal wér-gi-yaram doomu aadama bés bi dafa nekk occasion ci handicap membre di am benn panel di waxtaan mu dem ci grossesse ak hypertension yëriñ Fall mooy président bu association booba handicap maam dafa tàmm di organisation journée mondial de la santé mu tombe si jamono boo xam ne tamit ci koy waxee si àddina bi ñu ne naka la ñu war a mun a seetloo àddina bi mais seetloo tamit wér gu yaram doomu aadama bi si kaw loolu moo tax ñu ñu jukki si benn solo boo xam ne lu am solo la fii fii ñu féete muy kaw la mu nekk li nga nekk si diggante ëmb ak li ñu naan tension muy xorom te loolu dafa nekk tey mbir moo xam ne moo topp si ginnaaw hémorragie si li nga xam ne mooy gëna a lor jigéen si diggante ak indeen ndaxte seetlu nañ ko lu si bëri des fois jigéen bi day perte bakkanam mais lam ëmboon tamit da koy mujj ñàkkaale ci fekkente grossesse ak hypertension lu gën a sonal doomu aadama la Yërim fal nee ne kap membre pare na di bokk ci xeex feebar bi yooyu nekk la nag ay tiis yoo xam ne dafa réy nga xam nga yaakaar boobu nag lañuy fexe ne ñeen liggéey ba nga xam ne loolu ñu fexe ah, am na jéego yu am solo yoo xam ne réew mi liggéey nañ ko si wàññi ndeetee jigéen si diggante ëmb ak indi mais dinañ gën a wàññi joote boobu te tax tamit li si ñu war a xam pour mun ko yeggale si ñi nga xam ne ñoo ko war a bokk yëpp muy fajkat yi muy communauté bi muy autorité yi ba nga xam ne waxtaan boobu dina gën a mun a yomb ba réponse yi nga xam ne war na si am dëgg-dëgg nit ñi foofu lañ ko war a waral ba nga xam ne mu nekk lu gën a yaatu loo xam ne ñiy liggéey si mbir mi lañ bokk mais ñi nga xam ne ñooy askan bi tamit ñu bokk si mbir moom handicap membre muy ñaax askan yi ñëpp nekk benn di yokk sensibilisation ngir xeex li ñuy wax mortalité maternelle ak néonatale yéen a gi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ñu daal di eh, wéy ba tey nag ci jukkim xabaar yu wér te wóor li itam eh, junjoon naa leen ko nguur ak Sénégal nag jamono ji dafa am yéenew rek yokk juróom-ñett ci limu député ya nga xamee ne ña nga ci assemblée nationale loolee nag bu fekkente ne sax am na ñu koy layal du ku jëkk politique ba nga xamee ne jamono ji ñoom ña nga ko tuddee nag yàq xaalis gu métti ak neexalaate lu ni mel sax jamono ji jur na coow ci biir askan wi eh, ci waxtu boo xamee ne ña nga dëgmal la ñu tuddee yi Cheikh Ababacar Dieng dañuy dëgmal njeextalu weeru sulet la gouvernement bu Sénégal nag dafa am mbébétu yokkul li mu député yi nga xam ne ñoo war a nekk ci assemblée nationale lii mu ngi commencé jur coow honorable député Malick Guèye ci grand parti la bokk maanaam ci kujje gi ne ne nguur gi kay su bëggee yokkul li mu député yi am na yeneen i yoon yu mu war a jaar yudul yi ne yëkkati mu ngi woon ci Kaolack diaspora bi 15 ya fa nekk na président de la république xool ak ministre de l'intérieur ñu xool nuñ koy wàññee dugal ci département Kër Massar département yi am na ñu am 5 am yokk bi yokk huit députés pour lan après ñu ni dem nañ deux cent députés. moom mi nga xam ne ci cadre yi nekk ci assemblée nationale la bokk di yëngatu ci commission de loi bu pincum ndaw réew mi dafa jàpp ne assemblée nationale tey li ci yell mooy ñuy jooyanti sart yi nga xam ne ñoo ko tënk ndax doxalinam gën mën a waaye du yokk ay limu député. mais doon na baax bu fekkoon réformé nañ assemblée nationale ba dañuy fale député askan wi di fal directement

quelles sont les réformes de fond yi xam ne ñun bu ñu ñëwee lii la def donc loolu aussi c'est important keneen koo xam ne àndul benn yoon ci yokku limu député yi ndax daa jàpp ne yàq xaalis réew mi la te nit ñi soxla nañu ko moo di Fadel Barro nekk kilifa ci coalition jàmmi gox yi dëkkee ci Kaolack bu ñu amoon député yoo xam ne comme ñun ñi nga xam ne dañu mës a nekk député askan bi te soxlawuloon ñu dem nekk assemblée nationale konoon luñ ci yokk doyut waaye la fa nekk tey ndax jar naa yokk dafa mel ni ñoom toujours rek dañuy seet naka la ñuy yokkee ñi ñuy jox ci alalu réew mi ñu téye seen beneen pàcc mu naam ñu développer clientélisme bi ba ñoom ñu xool ni ñuy satisfaire seen nit loolu mu leen gën a tax a jóg dëgg-dëgg saafara jafe-jafe dëkk bi ak jafe-jafe askan bi pour man amul njëriñ seen député yi bokk bu ko yokk ci loolu dëgg-dëgg yàq xaalis nag jamono ji assemblée nationale mu ngi ci téeméeri député ak juróom benn fukk ak juróom su doon mbébétu nguur gi sotti na mooy dañ cee nar a yokk yeneen juróom-ñetti député yu bees jaajëf Cheikh euh, Babacar euh, Dieng dañuy des ba tey nag ca buntu boobee ñu daal di ubbi Malick Gueye député bu grand parti euh, boobee moom nag nee ngir itam ñu daal di am rek pencum ndaw réew moo xamee ne day jub te jàkk ala foog itam ñu amal ay réforme maanaam daal fexe joyanti fexe itam ba député yi xam la leen fa tekk toogal fa askan wi balaay daraay xew ay kàddoom ak Cheikh Babacar xam nga yàlla dafa def man dama bokkoon ci commission de réforme de règlement yëgal fii Kaolack wax naa ko ci média yi wax naa ko fu ma dem du loo xam ne sax ñi ñi sax koy identifier léegi commission boobu ñaari réunion la def ci législature ñaar réforme yi ñu waroon def ci treizième législature defuñu ko man nee naa nag li ma gëm mooy tant que defuñu réforme de fond à l' nationale sénégalais yi bu ñu yaakaar ni ëllëg bu diw génnee assemblée nationale keneen dugaat foofu si mbir mi day changé parce que expérience parlementaire ko war a réformer ba cette commission là ni commission des finances di évaluer les finances publiques de l'Assemblée nationale mais commission des lois war na mën a évaluer les magistrats du Sénégal comme magistrats yi ni ñu amee possibilité ne nañu lever immunité parlementaire député tel Assemblée nationale am benn commission boo xam ni magistrat boo xamante yaakaar nañ ni ni nga war a liggéey liggéey ñu woo laaj la ne dossiers yi nan la demee am na yaakaaraat bu quinzième jeexee ñu yaakaaraat seizième bu seizième jeexee ñu dem dix-septième jëm vingtième non dañ ko war yokk parce que déjà ñun li ñu war a mooy l'image du député nañ waxante dëgg parce que député Sénégal l'audibilité et l'image treizième législative bi député yi def nañ fi ne accusé kenn nag mais dama wax ne bon liñ ñu waxal wax ko suñu der mais bu dee dëgg bu dëgg mais baaxul ci suñu image baaxul ci suñu audibilité ñun nañu régler nañu régler njiital jàmmi gox yi nee na nag Kaolack moo gën a lottu rek ci mbiram député yooyee ndaxte nag député ya mu am amuñu benn taxawaay ci jafe-jafe askan wi ba tax na sax ñoom jamono ji ña ngay dagaan baatu askan woowee ne tey jii la ñu gën a engagé wu Fadel Barok Cheikh Ababacar Dieng. xam nga ñun dañu waxoon ne suñu engagement ci jàmmi gox yi du loo xam ne rek dafa nekk lu éphémère du ay mairie Kaolack moo ñu tax a jóg yàgg naa ko wax dañu ñëw taxaw pour bëgg surtout fii ci Kaolack ñu teel Kaolack kàddoom ci àdduna waxuma la Sénégal de mais

am na député boobu kan moo leen koy jàmbatal école yi boo fa demee condition yi ñu nekk suñu hôpitaux yi parce que hôpital régional bi condition yi mu nekkee gis naa fan yi ñu ñëw góorgóorlu état ñëw ñu inauguré la ñuy matériel bi mi ngi foofu ci hôpital bi ëpp na at ci ginnaaw ñu ne tey lañ koy door a inauguré jafe-jafe yi Kaolack nekkee métier mi fi gën a dox wax naa ko te di ko jàmbat te di ko jooyal xale yi ndawalum jakarta la ana député bu taxaw di ñu jàmbatal ba àdduna yëg ñu taxaw ci ñàkk xëy gi ne Kaolack ba Kaolack lu ñu jur ci doom ju baax mu génn dem ci bitim Kaolack pour am dara delsi ci Kaolack wala ñu di yónnee loolu dafa mën a koy waxal àdduna yëg ko saafara ko donc suñu taxawaay ci législative yi mooy nekk taxawaay yu continuer d'ailleurs sax maa ngi profité ci occasion bi nga mooy laaj ni pour wax ne Kaolack waaye na ñi ngi daagaan seen signature ñun ba léegi ànduñoo nguur ànduñoo kujje suñu bopp la ñu ànd ak soxla Kaolack gi lañu ànd ak pour fal ko donc maa ngi leen wax ne ñu ngi ñëw dem fu nekk ci gox goxaat yi pour daagaan parrainage yi parce que lépp lu mu laaj rek dañ ko ci def bee pas dañu laajoon ay millions yooyu fexe woon bokk bii pas parrainage lañ ñu laaj danañu dem ba fexe ba bokk ñun ñu nekk député Kaolack yooyu nga xam ne ba waa Kaolack xam ne am doom leen jàmbatal ak ku leen utal solution xibaar yi ci Alfayda yegg si euh, nañu nag ci ponk yi nga xamee ne moom la ñu euh, jagleel weeru euh, koor gi tey jii nag naafi la ci Medina Baye mooy ponk bu waxtaan bi fu nekk nag la nit ñi di jógee koo rek ngir daal di ñëw fekke si naafi la boobee bu dee ne sax am na ñuy wax yenn saay ne day faral di ay yàgg ña des ñoom nee nañu daal tiyaa bala ak njëriñ loo xamee ne jaral na leen Aline Badara Diop. fukki waxtu ci guddi moo jot ba taftal fanweeri simili fii ci diwaanu Medina Baye kàddu yi lee moo lay dalal ca bu neex ba.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 nit di jugee ñëw naafila si fii si diwaanu Medina na maa ba Jarañ. maa ngi jugee ba Saara Njugaare. naafila ci wéeru koor gi fii nag ci jumaa Medina Baye boo fi ñëwee sa xol day tooy ndax mbooloo mu takku mbégte ak contentement kese mooy feeñ ci seen xar kanam yi le ginnaaw yaakaar gu takkoo takku bu ñu am jëmale ko ci seexal islam Baye Mbaye kenn ci ñoom. ni mu ni mu mel ak yaakaar gi ñu ci am moo tax ñu jógee foofu te duñ ko sëyeeg duñ doyal aussi parce que xam naa gën a arrangé wax dëgg te yaakaar bu baax a baax lañ jàmm at yii yëpp fi lañ gën naa fi la jógee jariñ ba fii sant yàlla bu baax si xar kanam gi rek ngay gis mbégteem naa la gi xol bu sedd la may mun a géy amee alhamdulilah rek alhamdulilah lazi hadaana li haza ba ñu yàlla mayee Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass mooy suñu bunt ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne moo waxoon aw jadani xàqan bi jabali kasri fa inna nii wakiru siri siri waaye daal yàlla moo ñu ko cëralee macha allah alhamdulilah alhamdulilah métti wut de ku xamul rek moo wax loolu waaye ku xam fa nga jógee xam li la booleeg bàyyi loola bàyyi def da lay neex ndax kitaabul min allaahi jaliili jalaalahu xadimun wa baaxin laa yaqaabu zawala alquran diine yemut ak dara kon bu ñu yàlla mayee ñuy naafila kaamin fi naafila ci mbooloo jërëjëfee bàyyi rek bu ñenn ñi di jàmbat ni dafa yàgg Mouhamadul Habib dem moom gisul li ni mel teg si tamit mu ngi ñaax xale yi le ñu delloo seen xel ci yàlla ndax dee day bette. sunna la sunna la traité man li yàgg amu ci parce que ñu ci weeru koor lañ nekk te weeru koor weeru bonus la tey bu orange doon def wax ne dugg rek jël sa bonus weeru koor bi ci jaamu yàlla yi ñu def yëpp bonus la boo defee benn farata mi ngi nga def soixante-dix farata ci lu dul weeru koor boo defee benn naafila mi nga def farata ci lu dul weeru koor xam loolu ngëneel bu rëy rëy la kon njëriñ la loo xamante kenn war a wax ne daa yàgg waaw parce que ngëneel kenn mënu ko nat li wax rek mooy ndaw te réew jaamu yàlla xale yi bëri dañuy wax ne xale la damay toog ba toog a kon ñu ngi ñaax suñu bopp ñu ñaax jeunes yi nañu góorgóorlu jaamu seen borom topp seen borom ndax buñ dee seen borom ñu mën am yërmandeem mu tàbbal leen aljana la bokk ci liy jëmmal weeru koor fii nag ci Medina Baye mbooloo mu takku nga fi gis nit ñu bare lool ci biir ak ci biti teg ci fune ne la doomu aadama di jóge ngir ñëw sàkku ci ngëneel fii ci diwaan bu Medina Baye jokko njël Alioune Badara Diop ci wàllum naafila googee nag ca la ñuy euh, des Medina Baye ak nañu koy euh, defee lii ngëneelu koor geeg jaamu yàlla gi ci euh, nekk naafila yi li ko wutaleeg farata yi lii lépp nag moom Cheikh Mouhamadoul Bachir Niass ñu gën koo xam ci maam Bass sekk na ci waxtaan wu yaatoo ak na Badara Diop. naafila ci lu koor sax dafay am. nga baat fi naafila la tudd. dafa am lu ñuy tuddee fard ak naafila. farata mooy loo xam ne soo ko defut yàlla caw la. naafila yow la waaw xam nga jëloo dessert am na koo xam ne bi ñu ko tàjjalee lekk daf naan ana dessert bi xam nga du obligation mu dimbalee rek la ci digestion rek la reesal li lekk rek la yàlla lekk la la wax la ci des yaa ko ci teg ay yoo xam ne yaa ko ci teg pour bëgg a gaaw a lekk wala lu neex loolu rek la farata ji mooy loolu julli man saama ramadaana imaanan waxtisaaban loolu la yonent bi wax ku oor weeru koor ngir gëm yàlla ak yaakaar yoolu yàlla yàlla dinaa la jéggal say bàkkar wa man qaama laylatal qadri ku taxawal guddi laylatul qadri itam ngir gëm yàlla ak sàkku yool la defal yool boobu dégg yàllaa ñu farataal ba cëggi koor muy farata mu defal ñu guddi gi muy sunna kum neex mais bu la neex nga tëdd nelaw benn waaye ñëw wa sallam ne ko lu yàlla waral ci man mu ne ko juróomi julli suba takkusaan timis gee suba lu mu waral ci man ci or mu ne ko benn weer ci at lu mu waral ci man ci alal mu ne boo amee sa alal da ci génnee azaka boo bayee war am na ci yoo xam ne da ko génnee azaka mu ne ko lay gëñal ci kile yónni ne li nga wax nii du ma ci teg benn baat virgule du ma ko ci yi te du ma benn bis su ma amee alal dinaa ci génne asaka yonentu ne nit ak aljanaa ngi su fekkee li wax dëgg la da ngay gis kuraan xam nga naafila bii nii Seydina Omar moo ko def ku ne rek naan naafilaal sa bopp bi mu doonee xalif moo gis nit ku ne di a naafilaal sa bopp mu ne pourtant mën naa ut benn ilimaan dajale leen booy jàng alquran di naafila ñu ci gannaawam ba dana gën a yomb a wax ñu waaw mu def ko ci la xewee nii mais ci jamono yonentu bi amee wutoon nii jamono Seydina Omar baax na nag ci ku ko mën waaye ñëw dara bonus la rek mooy bonus li ma doon waxoon ci bonus bonus la waaye Sénégal nag dañ naan la ooruma tey ndax naafilawuma biig xam nga kenn su koo dégg bu heure bu jotee nga gis nit ñi def gir gir gir gir gir gir gir te bu julli farata jotee doo leen gis Sénégal dañoo bëgg folklore lu ànd ak folklore bu ñu koo bëgg dañuy wékkoo sa yaa day jógee kërëb kërëb kërëb kërëb boo oote woon julli farata kenn du ñëw hmm? mu nga noonu la mel naafila noonu la mel ci koor baax na nag ku mën a boole ñaar yi moom ñëw dara mel na li ñuy naafila mooy li ñuy naafila ci sunna fukki ràkk lay doon ak safa ak witr bis bu set nañ def ñaari isib ak nisif ak genn wàll bu weer wi amee juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñaar kaamil bi jeex xam nga yonent na ne leen laylatul qadri ci fukk koor iltamisuha fi l min ramadana laylatal qadri nga ne ko fan la ci mu ne taasiatin tabqaa guddi juróom-ñeenti fan saabiatin tabqaa guddi juróom-ñaari fan xaamisatin tabqaa guddi juróomi fan waaye ci fukk ju mujj ji la yonent wax ne nañ ci ut la tey la laylatul qadri mais yonent ne yàlla war na ma ko nëbbaat ma ko yow nga ne xam nga ko yow oral rek gis nga boo ooree am nga laylatul qadri boo naafilaa 30 jours yi cadre. mu nekkoon ay kaddu yi Cheikh Mouhamadul Bachir Niass ndéem fi la saara koy def itam fa la ñuy jaar rek daal di tàbbi ci yóbbalu koor geek oustaz Mouhamed Sow ba tey jii nag ñu ngi rek ci saar bi nga xamee ni moo di Baqara la muy tekki taarixam ngëneel yi ci nekk waaye saar beek lépp li nga xamee ne daal dina koy wax dellu siwaat na ci ci micro soxna Ndeye Fatou Cissé. saar bi aussi wax na julli buñ ko njëkkee wàcc nit ñi dañ daan jublu ñu woowee Palestine ca bi jublu màkka gannaaw fukki weer ak juróom-ñett di at ak genn wàll mbaa lu mel noonu waaye tam saar bi nettali na nit su amee naqar wala mu am nattu saar bi jàngale na wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye tam saaru baqara aussi wax na ci biiram istuwaaru taalut ak jaalut ak yonent yàlla daawud saar bi ci wàllu atte wax na attey julli wax na attey koor wax na attey ndénkaane kuy dem bay génn àdduna war a bind testament bàyyi fi saar wax na attey waaye tam wax ne atey xisaas ku rey ñu rey la ku jam ñu jam la ku dagg loxo jàmbur dagg sa loxo saar bi wax na ko waaye tam wax na ci wàllu jihaad bi sabilillah xare ci yoon yàlla mu waxaat atey aj ak umra waaye mu waxaat atte koo xam ne dangaa géñ ne sa jabar du ngeen seq sëy fii ak nangami at ma nangami weer saar bi wax na fan nga am droit yem fa wax na ci atey fase waaye tam wax na ci atey idda waaye wax na ci atey saraxe ne saraxe daal baax na boo ko feeñalee baax na boo ko nëbbee baax na waaye bu gën sarax bu ñu nëbb aussi wax na ci riba wane riba lu bon la riba lu araam la bu mu waxee attey riba ba noppi wax li nga xam ne moo ci aju mu ne na ngeen ragal bés bi ngeen di dellu fa yàlla muy bés bi ngeen di dee su ko defee nag bakkan bu ne suñ boroom matalal la sëkk li nga daan def te duñ la wàññi dara te duñ la tooñ aussi dara boroom xam-xam ñu ne aaya bi bokk na ci aaya yu mujjee wàcc ci ko suuf mooy aaya yu mujjee wàcc ci la bokk am nañu sax moo mujjee wàcc ci ay alquran yëpp xabaar yi xabaaru euh, biti réew yi ca ropalaaram la ñuy euh, dugg moom Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf euh, Ngone Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy doore ak réew bu Burkina Faso ke fi nekkoon njiitu réew bi di Roch Marc Christian Kaboré moom moom jot nañ ko bàyyi ci àllarba bi ñuy weesu juróom-benni fan ci weeru avril di Roch Marc Christian Kaboré jot na dellu këram ci fàttali moom dañ koo téye woon en résidence surveillée ginnaaw ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi ñuy weesu ci date bi nga xam ne ci lañ amaloon coup d'état Burkina Faso. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Guinée wax ci Ibrahima Fofana ak ñetti jëriñ yoo xam ni dañu la def sous mandat dépôt ki fi nekkoon njiitu ngurnement bu njëkk di Ibrahima na ak yeneen naataangoom yoo xam ne ñoo bokkoon benn ngurnement ci ngurum Alpha Condé ñoom moom la jot nañu la tuumal placé leen sous mandat de dépôt Guinée Conakry mbir moom la ñu ko amal ci àllarba bi ñu weesu juróom-benni fan ci weeru avril ginnaaw ci loolu lee ñiy saytu wàllum bi li ñeel di wàllum enregistrement illicite ak détournement des deniers publics. xabaar yi bitim dem ba réew bu Mali wax ci justice militaire bi nga xam ni jot na ubbi ab enquête bu yaat jëmale ko ci jàmmarloo yi nga xam ni moo am fële ca Moura ginnaaw accusation yi nga xam ni teg nañ ko seen ndodd rawatina civil yi ci njeexte weeru mars bi ba tax na armée bi nga xam ni moo nekk foofu ca Mali defoon na ab teew foofu ca Moura bokk ci centre pays bi loolu waral ci àllarba bi ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum yoon foofu ci réew bu Mali ubbi ubbi nañ ci ab lanket bu yaato yaatu. xabaar yi bitim réew. dem ba Soudan wax ci manifestation yi nga xam ne amoon na foofu lii ba benn doomu aadama jot ci ñàkk bakkanam ginnaaw bi ñu ko dóoree benn bal perdu loole waral ay junni junni doomu aadama wàcc ne foofu ci mbedd yi ci àllarba bi ñu weesu ñoom nag seen mëbët lenn kese la mooy dàq putschiste yi ngir ñu mën di daw lii di coup ci fàttali jàmmaarloo yooyu le benn xale bu góor jot na ci ñàkk ab bakkanam ci benn bal perdu fële ca xartum xabaar yi. bitim réew jeexalee xibaar bitim réew ak covid 19 foofu ci réew bu France mu mel ni campagne de vaccination bu ñaareelu dose covid bi ubbi nañ ko mbir melee ñi mu soxal lool bokk na si ñu am juróom-benn fukki at jëm kaw foofu ci réew bu France ci fàttali ñoo ñi nga xam ne jëlal nañ seen dose bu njëkk luy tolloog juróom-benn weer ci ginnaaw war a ñëw jël li nga xam ne mooy seen deuxième dose bu ñu sukkandikoo ci jawriñ ji nga xam ni moo yor wàllu wér-gu-yaram foofu ci bu France nee nañ vaccination yooyu lee door nañ ko ci alxames bi lee te ñi ci ciblé kat bokk ñi nga xam ni ñoo am juróom fukki at ak ñi nga xam ne ñoo am juróom fukki at jëm kaw. xabaar yi foofu lañuy ñu ci li nga xam ni mooy xibaari bitim réew yi kenn dal ak jàmm. xabaaru bàkk bàngoog jukkim xabaaru tàggat yaram yi ñaari poñ lay eh, doon Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokk auditeurs yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom di leen ziar ci àjjuma ji xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak quart de finale aller Ligue Europa démb Leipzig ak Atlanta Bergame ku nekk benn bal nga dugal sa morom Feyenoord ak Slavia Prague ku nekk ñetti bal nga dugal sa morom Hertha Francfort ak FC Barcelone ku nekk benn bal nga dugal sa morom Braga daan Glasgow Rangers benn bal ci dara West Ham ak Lyon ku nekk benn bal nga dugal sa moroom Marseille daan Pau-Salonique ñaari bal ci benn lay seex ak PSV Eindhoven ndam demul ndam dikul Glimt daan Roma ñaari bal benn tey ci dend ko Europe dina door fanweeri bëccëg bekk benn ci Ligue 1 Lorient mu dalal saint ñaari waxtu jotee fanweeri bëccëg bekk ñaar Premier League ci Angleterre Newcastle di laaleeg Wolverhampton fanweeri bëccëg bekk benn Liga espagnole Séville FC di laaleeg Grenade bu juróom-ñaari waxtu jotee ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñeent Bundesliga Stuttgart di laaleeg Borussia Dortmund ñu Guinée ginnaaw nag bi ñu ko dàqee Kaba Diawara nag ci élimination ci huitième de finale Coupe d'Afrique des Nations gi ñu weesu fédération guinéenne bu football démb nag daal dinay dëggal appel à candidature nag jëm ci poste sélectionneur bu série nationale bi nag waaye li ci yees nag moom mooy entraîneur boobu nag dañu wax dafa war a amee nationalité guinéenne muy tekki ne rek ki nar a jiiti série nationale bi ab entraîneur local naka doon ñu waxtaanee basketball juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril gi ñu nekk équipe yi nga xamante ni ñoo bokk ci conférence bu niil bi nag ñoo nar a daje juróom-benn équipe yu jógee ci fukki dëkk ak ñaar ci biir Afrique ak États-Unis ñoo nar a jongante lu toll ci fukki match ak juróoma waxtu mi jot na bokk yi ñu tàbb ak yéen ci seen rubrique tàggat yaram ak weeru koor. seen rubrique Alfayda FM waaw parce que déjà élèves yi comme ni ñu koy waxee pour éducation physique xëj na am na lu ñuy wax euh, inspection médicale des écoles nga xam ne dañuy defal élèves yi ay visite médicale normalement képp koo xamante ni am nga feebar wala en tout cas loo xamante ne da lay contre indiqué nga def sport dañ la ko war a dañ la war a exempté nga def EPS léegi nag xëj na mën na nekk ñoo xamante ni defuñu visite yooyu wala ñu ngi doon sooxaale loo xam yëguñu ko wala mu nekk sax accident parce que mën na nekk loo xamante ni du juste peut def na choc ci période bi ngay def fort yàlla def nga jaare fa ñàkk sa loolu joteewul dara ak l'état de santé mais dinaa la par exemple ku mbëkkante nga am traumatisme ci bopp bi nga jaare fa ñàkk sa loolu joteewul ak feebar boo xamante ni peut-être lu mel ne feebaru xol parce que ñu ci gën a ñi nga xam dañ leen di contre-indiqué sport mooy ñi nga xam dañu am feebaru xol donc ñaari cas ba tey bokkul waaye lu ci mën di am ci jàpp naa ne ci weeru koor gi tamit déjà même épreuve yi ñuy def normalement dañ ko war a adapté parce que am na ay épreuve yoo xam ça demande moins d'effort pour lépp ngir vraiment ñu mën a allier seen koor ak loolu sans mu jural leen ay lor. Magog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñu leen kenn yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi juma mubarak xibaar yi ci Alfayda. yegsi eh, nañu nag ci juróomeel bi eh, yoon kooru eh, gay moolum géej ak baax a jóob kooru gay moolum géej o xaaj ibrahim gay jullit ñu baax ñépp ñoo ngi ci koor gi DG donte ci ñu baax ñi la bokk day nasanoog ñépp waaye fay mujj nocc démb sori woon na ci koor gi barki sëriñ ba la barkollo tax kooram yàqu xaaj ibrahim naqar tàbbiwaat ci xolam mu réccooti tee course gi boole koog astax astaxfirulaa yu limu ngir suñ borom jéggal ko ba mën a matal kooram o oh, gay moolum géej nëga ni kersa la am ne nit ñu ko safoo tàmbali nañoo xam ne jom daa xëy mu gont naka mu toogee bureau ba rek jot benn appel waa direction des opérations douane ñoo kaawoo ne tey jile yi ñu tegoon loxo te yoon di ko tere tey lañ ko fas yéene lakk chanvre indien morphine méthamphétamine yi ak ay médicaments o oh, DG lépp war a ci lu ëpp 40 milliards comme ci koor gi lañ ne dafa yërëm liggéeykatam yi soppale ko reporter fekk ji ko gay yi moolum géej nes tut mu daal yegg gouverneur préfet ak yenn ci ay kilifa Haaj Ibrahim li gaañi di lakk lépp moo ngi téye portable am mel na kuy def direct di waxtu rek boo ko déglu ko rajo Alfayda waaye ñoo ngi fii ci jaafat o DG fekk day suub rek la muy wax gën a jege produit yi la yeneen bagages yi yitteelu ko ndax am na ay produit war a lekk ñoom mayonnaise ngir mu rawale ko saakam la bokk xaaj ibrahim la muy wax lépp moo ngi cetal bët bi ODG te yemu soxla dara amu ci te yii fi ne sañu ko laal ndax kilifa yi waaye xaaj ibrahim naka mu jege ko rek nooyi ko nooyi bu baax xel mi tàmbali di gis ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf tànk yi jaxasoo DG gouverneur yaay yeewu woon nañu ci naaj bi dóor sa mbaxana bañoog sunu dal naaj bi lakk milliards réew mi ni mu ñàkk yëkkati quarante milliards di ko lakk lu yàq la ñu ko wax te dee boo ma ci joxoon sax ma tekk ba faw o oh, Haj Ibrahim comme nekkatu fi wax ji sàppi na ko soppali ko activiste alal gi ñu nar a yàq la nangu xut benn corne métavitamine ay téeméeri million la DG mu taxaw ca jalba yëkkati loxo ca kaw di ñaxtu no gaspillage no gaspillage o oh, Haj Ibrahim gaañi faale wuñu ko sotti essence dal taal xam ne bu yéexee rek foo mu jëppët mu ne ciix ci corne méthamphétamine yi dugal ci poosam mel nekk fet milliardaire la bëgg nekk o DG comme sécurité bi daa doy laataa muy génn gaañu ne ko néej muy bañantu ñu yëkkati ba ca kaw fudd ci suuf nooy ga aju comme waa sapeur pompier ñoo nga fa woon ci lañu juutal seen camion ba DG daal di tooy xepp biir ba fees tepp mun a bër xët allahumma <laughs> laka sumtu ci laa ko feelu wa bika amantu wa ala rizqika aftart faghfir lii maa qaddamtu wa maa axartu bu leen koy fàtte di wax li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf li ci euh, yéene kaay yeeg El Hadji Seydina Oumar Cissé ah. wàllaan bikum cheikhu Oumar Diagne tëj nañu ko fanaan na guddeem gu njëkk ca kaso ga niki déem bu allah 24 heures yéen a kaay ñi ko xamal yéen kaay bi na cheikh Oumar Diagne nag la tax ñu tëj ko kaso mooy maître Djibril Waar moo ko porté plainte na fa ko waxal lu amu tuuma ak i saaga critique yéen a kaay mel ni ku naan si jamono ji nga xam ne ñi ngi tëj cheikh Oumar Diagne kaso moom mi nga xam ne nitu dëgg la bañkat la ku bëgg Sénégal di ko défendre ñiy def na sa du noon yëpp mu di leen weer lépp ngir intérêt askan wi si jamono jooju ay député député ñu ngi def yu garaaw yu doy waar te presque du mujj fenn yow seetal député bi ñuy wax Biaye ak Sall passeport diplomatique ya seen procès ba fañ koo dàq ba le 21 avril bii di ñëw te xoolal coow loolu ni mu yàggee ba léegi ak yeneen député yuy këppu kees wàllu xaalis bu tilim ak viol ay mbir yu garaaw Fadel Baro mel ni ku naan cim député yi parti politique yi rek lañ fi nekkal ci l'évidence yéene kaay moo tax mu nekk candidat ci wote député yi di ñëw ña bañ gàcca dal leen ak seen parti ba muy PS ca na ko Aminata Mbengue Ndiaye yoree moo tax ñu jóg fippu ñoom kàngamu PS yi soxla ñu amal congrès far force bés bi yéene kaay moo ñu ko xamal Dakar Times ne ay cadre ngonk PS yi ñu ngay tëkku ne boo moytuwut ñoom fa ñu bàyyi sax PS dem beneen parti ndax lañ gis ne xamuñ ko la mu xam ba wax ñu ko moom wal fajir yéene kaay mooy ne fi mu toll ni parrainage bi parti politique yi ñu ngay tëkkalante xam ay signature ñu am signature u Macky Sall ba tax mu dala leen ci audience mooy jàngalekat yi nekk ci njàng mu kawe mi alerte yéene kaay na lépp lu mu def bilan ci wàllu njàng mu kawe mi Macky wax na ko fa réew mi yéene kaay dëggal ko Le Soleil na ko faala yokkal fukki dogal ak ñaar yi Macky jël lépp ngir joyante jafe-jafe ci njàng mu kawe mi la war a journal ne Macky kay fi mu toll nii fa mel ni mi ngi dund bësam yi gën a neex ci nguuram gi yow seetal ay inauguré moom la dëkkee taa yi demal ca teer ba stade tali ak yeneen yu mu jot a def te digg na sénégalais yeneen yu mu war a defaat bugaan géey dani na ko hëy sa digge yooyu fa doy yow Macky Sall ndax li ngay diggee ak li ngay def comme yàlla ak yàlla ci tirbin yenekaay kaay bugaan géey fa xam na Macky Sall réew mi doxee nii ak li ci xam fay wane ne fa tële fa lajj ba xalangu yow seetal bi Sénégal yor ëpp na ñetti junney a a wan ginnaaw lam leen diggoon dara la ci defut les si ko mel ni ku ko yow bugaan ngay dani fa ngaa xam loola doy sëkk war a lijjanti moo gën nga nekk fi naan yaa ngi attaqué Macky su fekkee sax li ngay wax gëm nga ko yow seetal wàllu abus de confiance bi la waa banque ba ñu wax NCA toppee donte gañ nga ca seen jàkkaarloo ba waaye dese na la yeneen procédure ci wàllu tribunal de commerce nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne ñiy jaay boutique Sénégal wax nañ Macky Sall seen fukki dëgg juróom-ñaar bokk na ca njëgu dund gi nga wax ne nañ ko wàññi ñoo bañ ba tëdd ca naaj wa ndax kenn du jaay di perte su fekkee fa ngaa bëgg ñu wàññi yow sa bopp Macky wàññi leen nga xam ne état bi fa ko fixé xalaa fa nga ne fa ñun fa ñuy sël mu jëmal a kaw ñu wàññeeku bëgg ñoo di jafe-jafe waaye nag kenn du jëndee fukk di jaayee juróom te bés bu ñu toogoon une semaine rek laa wax ñàkk a jaay yow Macky Sall xamal ne réew mi la nga dajoon weeru mars wala weesu ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko yi da nga daj lu ko ëpp kàddu boutique yi mi ngi ci Vox Populi ak alerte yéene kaay Walfadjri yéene kaay na leen mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr moom ngeen di wax xam nga fi mu toll moo lëmbe dëkk bi moom la Sénégalais di waxtaanee ginnaaw bu bopp képp koo xam ne dëgg rek la ñor bi nga déggee audio Mamour Diallo yii la mu wax Adji yëpp yu garaaw yéen dégg ci audio tax na ñëpp xam ne fi mu toll ni yëf yi leer na ay moo ci xam tax na yéene kaay bi ne Ousmane Sonko moom njiital Pastef lenn rek moo mën a am yoon fa koy déglu xam ne kii liñ koy toppee Afrique caaxaan-caaxaan dara du ci dëgg ñu neenal dossier bi na ko demal sa yoon wala boog su fekkee ubbi nañ procès tamit procès ba moom su méttee ba métti Ousmane Sonko sursi lañ koy dóor maanaam daan yoo xam ne doo ko tëdd loolu mooy li gën a métti sénégalais yi nag ña ca gën a jàpp mooy sursi sax fa ci do ku defu dara non lié lépp leer na ña wax na sax Ousmane Sonko moo wiyoole fi mu toll ñi ngay deltu ginnaaw di soppi ay kàddu ku leer laneen lu leer ba mel ni jant tusubaar soldaaru Sénégal yi jàmbaar yi fi mu toll ni ña ngay attaqué César Atoute Badiate lépp ngir kaaraange Casamance ga ginnaaw bu ñu raxasee defal bagage Saliou Sadio enquête yéen a kaay dëggal xibaar bi na ko démb jàmbaar yi fa ñoo song fa ñuy wax Jibi Jon nekk ca département bu Bignona lenn ca askanu wa dëkk ca dëkk yi ko wër ñoom fa ñoo daw dem Gàmbi man ma daw dem ci témoin yéen a fekk fa Air Afrique bi nga xam ne fañ koo rey mu dee ëpp na ñaar fukki at ña fa nekkoon di liggéey ba léegi xana moo tax ndàmpaay li ñu leen a jox bloqué wu nag ndax liggéey ba noppi na mooy jumaa ju mag bu Touba Almadi direct news ne inauguré ko ba tax mun a ndonnol Serigne Saliou ya mu ngi ci loxo yu wóor de la ko wóor ba mu wax ñu ko moom info yéene kaay mooy na total ngay daw ci gaz bu manqué bi leen tuumal ne lu njaaga ñooy njaag yow seetal seen njiit la faxab bu ay bouteille lobbu maam jaara lépp ngir gaz amaat ci réew mi sur saa yéene kaay na ñuy fa ñuy foxantoo sénégalais yi afru caaxaan caaxaan yi mooy lan waaye yu néew gaz dana amaat l'évidence yéene kaay moom di ñu xamal ne faat sargal njiit réew makki Sall ci ndomba tànk bi nga xam na la takkal responsable am ba leader am ba Mouhamed Ndiaye Rahma ci diwaanu Kaolack ndangaan yow seetal xam nga Macky fa nommé Rahma ministre conseil ci cabinet président Macky Sall li ni mel nag faat ñang buur géwél ne Rahma fa ko mérito ba tax mu woo président tam ya mbooloo mu bari ca seen quartier ba gaawaan daal di koy fësal les si ko yéene moom di ñu xamal ne benn waay daal jabaram fa ko bàyyi dem ne na sëy ba tas waaja ne du ko dégg xam nga nu defam fa jënd piisu téléphone bu bees di xoo jabar ja naan xam naa say photo yoo defee yaramu nee nag danaa ko wane ci internet bi jabar ja porté plainte takk der ya dem ba jàpp jëkkër ji jabar ja moom fa joom mi ba pare na baxal na ko xana jom ak fulla Dakar Times moom di ñu xamal ne mbootaayu xeet yi waa ONU yi tubaab yi fi mu toll nee nañu yooyu yaay fa ñoo tere góor gu am jabar yu bari ndax lépp fa ñuy bañ fitnaal néewal doole gi ñuy def soxna yi waa ma ne yéen tubaab yi su ngeen tànnee benn jabar jël leen waaye jullit yi nga xam ne seen diine may na leen benn ba ñeent feeg ñu ngi koy mën yéen ci seen yoon man ngi xaar rek ku taxaw sama kanam naan ma bul wut ñaareel faa lay sox kur pompañ de góor ñëpp bu ñu takkee benn jabar jigéen ñi niñ bëri léegi ñu des moom kañ la ñuy xam jëkkër te xam jabar yu bëri moo gën taxawaala gu bëri Shukran euh, ci euh, yéenekaay yi foofee sax nag la ñuy yëkkatee jotaayu euh, xibaar yi dig leen ci kàllaamay nasaraan benn waxtu ci kàllaama ko ci barma lay doon mbokk yi jaajëfal nañu leen yéen ñi fare woon ci wàllum déglu gi jaajëfal ko du sekk kenn me ci xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi woy leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc mucc intitulé Jami biir ak biti euh, tawféex ak taysiir jaageen jëfati. Le journal Ngoné Ndiaye Reine.